salaamaaleykum am internet yu Dakar Buzz ñu ngi leen di nuy bu baax di leen siyaare di sant yàlla julli ci yonent bi waaye di am mbégte tey ci pàkk bi ñu tàbbi sëñ Baara wax na ko sànq euh, fii nu indi alxuraan ji këram leen ko indi ndax dama naan ab naar boo ko indee gànnaar bu ñu bu toxoo bu jaaku ñu biloo sëñ Baara tey dem dañ ci pàkk bu ne waaye fii ñu tàbbi tey dafa spécial ndax kii nu fekk si day kilifa goo xam ne kenn ku ne dégg na ak waaye fam ak bëgg yàllaam ak bëgg alxuraanaam ak nit yi li nga xam ne mooy sunna Seydina Mohamed kon ñu ngi ñaan yàlla guddal sa yàlla bàyyi la fi waaye di ñaanal diaspora bi diaspora bi am ngeen loo xam ne tey ji nit daw na ci ay at amu ko may ñaan fépp doomu aadama nekk rek tey seetaan Dakar Buzz ànd ak ñun ci liggéey bi yàlla yàlla yokk la. xam naa ni bi nga taalagul woon euh, appareil bi. Euh, li ma waxoon laay baamtuwaat rek di sant yàlla bu baax di julli ci sangu-sangu yi di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di gërëm yàlla ndax tey jii yëg nañ ci yor sunu sunu xol bi mbég moo xam ne demuñu àjjana de waaye biir nañu buñ fa duggoon tamit du ñu béggee nii ñu béggee nii xam naa duñ ko weesu ndaxte góor yàlla lañ toogal muy nitu yàlla àdduna bépp bëgg ko xeet yëpp bëgg ko ngir lan heure boo bëggee yàlla yàlla mooy def si xol yi ñëpp ñu bëgg la sa duñ ko sañ a bañ moo tax bu ñu ñëw maatam day mel ni dañoo jóge si kër rek dugg ci kër distance bi sax duñ ko yëg man damay sant yàlla bu baax ndax Thierno mi wallaay lazim lii may wax moom xam na ko chaque fajar damay julli tudd turam ñaanal ko dama naan Thierno Sama Sama maatam ñaanal sëñ taxa Mbacké ñaanal maam El euh, Hadj kafi nekkal maam El Hadj ndaxte kat. bâtiment bii li tax ñu mën a toog mooy keno yu ko téye sa ñoom ñooy keno yu téye xanaa ba ah, maanaam diine ji kon yàlla nga yàlla guddal sa fan wéral la lii nag biñ ko xalaatee xalaat bi liñ naan muslimin wal muslimaat waaye xel dina jóge si góor wala jigéen kon dafa jóge si xalaat bu rafet bu sell ku naan Adja Dior Fall nekk ba Amérique mu ne moom nañu jaayante def na yi defoon mooy jël un million kaamil war ko këru diine yi ñi nga xam ne dañoo taxawal diine lislaam surtout maa nag muy maanaam daaray cosaan yi pas internat mais daaray cosaan nga xam ne ko xool cerno li mu yor si ay ndongo maanaam ko ko fi jox rek dem nga moo leen di dundal seen añ ak reer lépp moo koy def kon ku mel nii maanaam ku ko jàppale ku bëgg am koo jàppale ku bëgg def si diine maanaam kii a jàppale bokk si ñi nga xam ne ku leen jàppale jàppale nga yàlla ci toolam bii muy lislaam moo tax Adja Dior bi mu koy xalaat daan ni sunu waajur de sunu kilifa sëñ Muntaxa Mbàkke bi muy toog dafa wax ne ku dem ma dem ku demul ma dem nee na heure boo ko defee boo gëstoo gis ñu topp sa ginnaaw. envoyé ma ko ni ma tàmbalil kaamil yi ñu daal di tàmbali. ajaa Maguette Wade di président bi nekk Sénégal daal di tam yëkkati xaalisam joxe ni tàmbalil noonu la Gorgui Sy Dieng di basketteur bu nekk Amérique daal ni fooleen di dem si tournée yi essence bi bu nekkoon xanaa ñaari million sax maa koy jënd. maa leen di booleeg sama xarit sama frère bi di baddo ba pare yëkkati oto jox ñu sa du tey rek la ko def bi ñu nekkee xanaa nangaan sàmb ay maternité yoo xam ne ñett yoo xam ne fu fa amee doom maanaam amaana waajur wa du mucc wala xale bi du mucc mu fexe jël sec bi mu jëlee sec bi di ma ko jox defe ne buñ ko wax sax si média bi montant bi ñu def ne foofu rek lay yem mu indi ñaari conteneur équipé lépp ak matériel moo tax Thierno ñu ngi lay ñaan nga ñaanal ko ñaanal boroom xalaat bu rafet bu sell bi di Adja Dior Fall nga xam ne lu jig njàkk te mooy njàkk ak ñi ko ci gunge ñëpp waaye ay ñoom rajo Moodu ay ñoom euh, euh, ki ki kii Diène e, ñoom Issa Diène Issa Diène moom tamit jàpp si jàpp si dund jàpp si lu bëri mu def ko si kon daal bu ñu limee juum waaye daal ñu ngi ñaan ci barke alxuraan arafi ni mu toll téere bi nekk 114 saar nekk 3600 ay aaya nang nangami junni xanaa araf képp ku si def sa dërëm ñu ngi ñaan cerno maanaam mu ñaanal leen ndax cerno ñu ngi lay wax ne la diaspora bi am na ñoo xam ne bi ñu fiy jógee fii Sénégal di dem dañ fee bàyyi bàyyi bàyyi fi yaay tukki waaye ku ne xam ne ne dee day ñëw si betteel bi ñu tukkee amuñu kayit seen waajur génn adduna da ngay gis sax ñoo xam ne bu ñuy wax Adja jëndal ma juróomi kaamil seen i rongoñ day tuur ma ñaanal ko sama waajuru góor fam dem kon ñooñu ñaanal leen seen waajur waaye ñaanal leen ñoom ñu am kayit am ñoom foo xam ne tamit ñu ngi nekk ak seen soxna foofu jafe-jafe jamono tax ba maanaam ñuy réeroog seen soxna ñaanal leen ñu am ay xéewal waaye ñaanal kuñ naan tamit Ousmane Balde ñu naan ko Ousmane Doura ñaanal daal kuñ naan tamit Madou juuf Adama Kebe ak képp koo xam ne daal def na si dërëmam daal mu yëg ak mu bañ koo yëg ñu ngi toog si góor yàlla gii di ko dagaan ndax kat kër boo fay dugg da ngay jaar ci buntu ba buntu bu kii di see bokk ñu ngi ñaan mu ñaanal ñu ndaxte lii ma koy wax pour mu dégg ko am na ñoo xam ne lu ñu dégg rek sunu borom saafara ko waaye ñun ñii tamit ñun duñ la wax sunu bopp ndaxte ñun leer na ne avant ñuy ñëw xam nga li nekk sunu xol. nekk nii cerno wallaay lay jëm liñ naan sama xol dafa fees ba xaw ma sax baat yi may wax ndax ñi ma toogal xam nañ ni daanaa wax wax ju xaw a tegu si yoon waaye damaa jaxasoo ndax sama xol dafa fees jàppaan naa jataay bi du ma ko amaat moo tax fu ma jullee fajal rek ñaanal la. yàlla guddal sa fan sa yàgg fi ñu ngi koy dagaan sunu borom di ko yalwaan sunu borom yàgg fi lool te wér si barke alxuraan yàgg fi lool sa wér maa ngi leen di naan ni ñëpp wax ne Thierno Samassa sa na fi yàgg te wér Thierno Samassa yàlla na fi yàgg lool ta wér si barke alxuraan wa karim barke laa ilaha illallah muhammadu rasulullah barke weer wu tedd wii di saxbaan barke weer wi ñu génn di rajab waaye barke weer wi ñu war a dugg di weeru koor kon daal ñu ngi euh, gàttal suñu kàddu di ko wàcce xam ne daal lu duuf si nag yu woon ci cin li dañ ci doon jël ay morceau taabal ko si rek waaye wax dëgg yàlla ñi ma yónnee sa yabal ma ñuy Adja Dior Fall ma nekk Amérique ak ajaa Maguette Wade mi nekk présidente fii Sénégal waxoon nañ lu gën a rafet lii waaye damay ndaw lu xeebu toog sama kilifa goo xam ne nag dama koo bëgg lool sama xol bëgg daal ngeen ñaanal ñëpp daal ci barke alxuraanu karim barke weer wi ñu muy weeru koor salaatu wa salaam ala rasulillah. jërëjëf jërëjëf xanaa baax na rafet na ñaan rek moo des. alhamdulilah jërëjëf ñu ñaan rek. alhamdulilah nangu leen ñaan bismillah ku xool ku xool image yi daal waxal amin rek amin ya rabbal alamin amiin yaa rabbal aalamiin amiin yaa rabbal aalamiin amiin yaa rabbal aalamiin amiin yaa rabbal aalamiin kër xaj Babacar kontaan naa mais ci kër gi cinq minutes rek ma yeewi leen ngeen euh, ci sofaat rek mooy Dakar ba li média la di yëngu ci ñi tawaat te seen loxo jot seen ginnaaw ñu leen di seeti pour ñu mën leen a jàppale ñu bari fajoo ci nag ba bëgg nga ñaanal ñu tam turu Dakar Buzz mu yokk ba yëg ko ndax lu baax rek moo ko tax a jóg koor gi rek dafa fas ne jël ay dund di ko séddale jaamu yàlla yi nga xam ne boor nañ ba ngoon te seen loxo jot seen ginnaaw ñu bëgg nga ñaanal ci yàlla def ci barke te yokk dakaar Buzz ndax loo ñaan suñu borom def ko te nga ñaanal sama wéjur nag mu gudd fan loolu te yàgg fi tama bari xewal amin yëpp yal na la ko amin amin amin yéen yëpp seen yéen yëpp yal na la àggal yéen yëpp ci kaw jàmm ak teraanga ak sutura ñaanal naa leen ci waayir ci baat incha allahu taala Baara tey lan nga yëg ci dëkk bi ñu tàbbi di dëkkub alxuraan waaw xanaa sant yàlla rek ndaxte sëñ Fadel euh, def sa yàlla tax def sa yàlla tax daal maanaam juumuñu ndaxte liñ naan dañuy def sa yàlla tax alxuraan indi nañ ko fi nga xam ne maanaam ay wàccuwaayam rek lañ koy yóbbu ndax ku ñëw fii si wurusoo gi ñëw fekk fi Thierno Aliou Thiam nga xam ni bu ko neexoon dëkk Ndakaaru bu ko neexoon dëkk feneen waaye boo xoolee lim investir fii si dëkk bi sa dara warul ko doon alxuraan kon nga xam ne ànd ak yàlla rek moo wóor. waaw ginnaaw bi ñu jógee ci Thierno Samb di nit ku baax ku tedd mu ñaan ñaanal ñu ñaanu xol ba pare mm. soññaat ñu ba pare am leneen lu ñu ci moom lan nga yëg ndax gis seen saama sax jafe na te yomb nañu lool. waaw xam nga loolu mooy alxuraan alxuraan moo mel noonu ñoom fi mu nekk nii bu ñu fi indi woon ay milliards man leen fee teg une semaine duñ ko gis waaye biñ ko xamalee ni ko ñii téere yàlla bi lañ indi moo tax moo ñu ganaleel boppam yóbbu ñu si këram gi ñu naan firdaws dalal ñu fa yóbbuwaat ñu sa toolam ya daal ni bu ñu ñëwaatee nañu ñaanal alxuraan la teral waaye tamit ay jaami yàlla la teral waaye ay julliti yàlla la teral dafa sukkandiku lii alxuraan doon wax naan lay sel bureau seen gëm yàlla du mat lu dul li ngeen gën a bëgg joxe ngeen ko fi sabilillaay kon Thierno Samassa yàlla na yàlla guddal fanam wéeral ko ndax sagu yoon wi la waaye Thierno Aliou Thiam mi ñu dugg tamit mooy maanaam ci kenolu keno gu mag si yoon wi yàlla yàlla guddal fanam wéeral cëram ñu ngi dugg nii si këram ah jërëjëf lan ngay wax Adja Dior ñu bokk liggéey bi ndax lii yombul. waw xam nga dama naan Adja Dior euh, maanaam liñ naan fi mu wokk foofoo xesen ndaxte li ko waxloo projet bi wallaay lazim nit di nga toll foo xam ne sëñ Fadel boo waxee làmmeñu sunu borom ngay waxee boo jógee dox do tànki sunu dox borom ngay ngay ngay doxee. mu daal ni un million de kaamil pour les daara di Sénégal am ko ne ko loolu day da ngeen di xaru ndax loolu un milliard cinq cent million la. mu ne ko nit di jënd xanaa oto deux milliards di gis jigéen joo xam ne sax nobul nga may ko milliard kon yàlla jaral na ko loolu mu daal ni day tàmbali ak say fon propres Adja Maguette di président national bi fii yëkkati tamit war wërsëgam joxe ñu bëri yëkkati góor gi si Dieng daal kenn du ma si man sa wallaay lazim alxuraan baqara ba naa si faleel doo dégg mukk fi yàlla naan fa nit ki waxee fa nit ki jëfee rek ngay dégg maa ngi ñaan nag ci barke alxuraan la Seydina Ousmane jëfoon ba am xanaa yiwu rëy bi mu amoon yal na ko maanaam képp ko def xanaa dërëmam si kaamilu alxuraan yi yal na la yàlla defal barkeb naa Ousmane Ba mu teg ci téere yàlla bi di ko joxar bi naan ko yaa kitaabul karimin anta karimin anta abib bi yow téere yàlla bi yaay sama soppe naan ko kitaabun karimin li habdil karimin mu karimin kitaabun bi téere karimin ak tedd tukkee si borom bu tedd ñëw si jaam bu tedd di jibril alayhi salaam waaye ñëw si jaamam bu tedd di seydina Muhammad sallallahu sallam ne nag li ma am bu mu leen jaaxal bu mu leen yéem li ma ko may mooy téere sunu borom bii rek ak bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo demee maam El Hadj Malick si mu ngi koy wax xanaa si euh, si mimia nga xam ne téere bii rek la fonk mooy alxuraan boo demee Baye ñas dem nañ fa téere bii rek la fonk boo demee maam Limaamu Kumba Ndooy moom mun ne ajiboo daay yàllaay moom tamit téere bii la fonk waaye boo ñëwee fii Thierno Sama Sa nga xam ne dafa ni maanaam fii li muy tàng-tàng li tax maanaam du ma yëg tàngoor wi mooy téere yàlla bi ñu ñëw Thierno Thierno Aliou Thiam mu ne tàngoor wi yëguma ko ndax lan téere yàlla bi moom laay wéttali ko kon daal ñu ngi sant yàlla bu baax di wax ne Adja Dior yàlla na yàlla guddal fanam. wa rahmatullahi wa taala eh, ñoo ngi fii tey ci kër Thierno Aliou Thiam yàlla na yàlla yàggal ko fi te dëgëral ko ñu ñëw fekk mu génn waaye macha allah mu ñu fekk fi doomam di dogit ci moom di Thierno Yaaya tabaarakalaa ci suba ba léegi mu toog di ñu xaar ndax eh, biñ ko nee dinañ fi ñëw. te alxuraan la ñuy indi lépp lu ñu jàppoon bàyyi nañ ko du ñun nag lañu teeru waaye alxuraan ji lañu ñu teeru bu doon benn kaamilit ñoom junni kaamil la ci ñoom ndax amul dayo tabaarakallaahu ñu koy nuyu bu baax di ko ziar jël suñuy nuyoo ak suñuy ziar yëpp jox teg ko ci loxo doomam Thierno Yaya mu joxal ñu ko waaye joxal ñu ko njaboot gi mu njaboote yëpp tabaarakallaahu Euh, ñuy wax rek ni Thierno Aliou Thiam mi ñu ñëw fekk si xëy na fii mooy kër gi waaye ay daaram ci Fuuta yaatu na ndax li mu jàngal ci ay doomu aadama tasaare leen ci biir tund Fuuta kenn xamul nu mu toll loolu seede la rek yu ma doon def ci béréb bi nga xamante ni fi la ñëw muy kër Thierno Aliou Thiam di ko ñaanal yàlla yàlla dëgëral ko yàlla sàmm ko yàlla aar ko yàlla may ko fan wu gudd di gërëm bu baax nag ñi nga xam ne ñoom ñoo am initiative bi rawatina sunu jarbaat soxna Coro soxna Joor euh, gisanteeguñu par téléphone rek la ñuy wax euh, li mu ma wax ci dëg-dëg boo xamante ni da koy am ca fa mu nekk mu jëm ci diine ña nga xam ni ñoo fa nekk te diine ñor leen bu nu taxawul la ñuy préparé bu wàccee ci ñun kenn dootul tudd diine loolu nag ci lañ commencé ñoom di def un million de mille par an li sëñ Babacar si Abdoul Aziz wax ca Tiwaawan ni leen jamono bi ñuy dajale téere yi di ko lakk jamono boobu ngeen di jël téere yi di ko indi wax la bu am solo te ay nit ñu ngi fi di jël téere kaamilu alxuraan yi di ko lakk di dugal yeneen téere yoo xamante ni lañ ca bind ay fota nga ca yoo xamante ni bu ko xale bi jàngee leneen lay firi kon nag bu ngeen jógee di def lii nekk na liggéey boo xamante ni bu am solo la yal na yàlla dëgëral leen sàmm leen aar leen Euh, may leen wërsëgu yaatoo yaatoo yaatu ña nekk ñëpp nag. jërëjëf kilifa gi sëñ Baara kilifa gi daanaka wax na lépp waaye say kàddu dañ ko cee taamu doon te ñaari béy la sax faaw nga sof ko ci ñu door a jox sëriñ bi mu door ñëw ñaanal ñu door a ci liggéey bi. tabarkallah salaam ala rasulillahi bi ñu ngi lay ziar bu baax di la jox say yéeguwaay bi la yàlla jox. Eh, di sant yàlla bu baax bi ñu yàlla baaxeewaat ñu toog ci jataay bi nga xam ne di kër Thierno Aliou Thiam ñu fekk fi ki nga xam ni maanaam dogit la si moom muy doomam saman li ma gëm mooy xàmmiwuma ko waajuram bu fi toogoon ndax gis nga jaan bu la màttee doo dekk naan doom jala la wala baay ba la da ngay daw su luggukat ba rek baa ngi ñibbi yomal xëy am kon daal sëriñ bi ñu ngi lay jox sa yëguwaay di sant yàlla bu baax a baax a baax a baax a baax si jataay bi ñu fekkee di wax ni lii kat biñ ko xalaatee xalaat bu sell bi mi ngi jóge si soxna suñ ñaan joor Fall moom tamit mu ne na ñu jaayante donte la état mënul def lépp waaye ñoom tamit ñu bay seen wàll daal di commencé ñu jël seen ñàkk bopp joxe ni tàmbali leen. Adja maanaam sëñ góor gi si Dieng di càmmeñam di basket nekk ba États-Unis moom tamit daan ni leen di ngeen xam ne xeex soto si gën a metti daal di jël oto ak carburant sëriñ bi lii ma lay wax dama bëgg yow xam naa ni boo ko déggee ñaanal leen laa ci jublu ndaxte tey ji nit buy def lu baax si diina ji laaj ñu ñu dimbali ko ndax mu gën koo man ndax ñii kat lislaam ñor na leen lool ñu ngi jël seen wërsëg di ko si def sa tay wuñu sonn wuñu ndax góor gi si jeex dafa jël xanaa alal ni mu saxee si xol jënd oto bu bees tàq ni foo leen di dem ci Sénégal mi ngi seen disponibilité jël frère bii di baddo ni àndal ak ñoom muy guddi muy bëccëg démb rek biñ ñëwee nañu départ une heure matin deux heures du matin une heure du matin baddu mi gaare na sama buntu kër kon loolu ñii ñu jar lañ mu boole ko carburant nga ñaanal ko tamit yaramam dafa sutante moom góor gi si Dieng ndax dafa def démb benn blessure si benn mas sa li tax ma lay wax lii nit bu defee lu baax nañ ko wax ndax keneen ki ko mën sa defu ko mën see déggee mën koo jéem ndax jëfi Seydina Ousmane Dia yonent bi moo ko fisal sa yonent bi lu mu wax loolu sunna la kon nag ngir lan bëgg nit ñu royee si mu blessé ñu bëgg nga ñaanal ko ba mu wér ba clubam bi mu nekk mu gën koo yokk ay xéewal ak wiir si barke alxuraan waaye nga ñaanal tamit ku ñaan Mohamed maanaam Mohamed euh, Mohamed Amar moom bi mu yëgee lii rek dafa ni mille kaamil laa sosoo magam xaadim Amar tamit jàpp si sëñ Issa Dieng tamit yëkkati maanaam ay toni ceeb joxe si jàpp si liggéey bi kon daal jar na ñii nga ñaanal leen bu baax waaye ñaanal ku ñaan Ousmane Balde waaye ñaanal équipe bii ñu àndal ñun ñëpp te sunu président national bi mooy euh, say Adja Maguette Wade nga ñaanal ko moom tamit borom këram ñaanal tamit njabootam ñëpp rek nga ñaanal leen ñaanal tamit sama sëriñ bi nga xam ne ndax dama naan lu jig njaag te mooy njaag ndaxte wax dëgg yàlla sëñ Babacar Ndiaye mi mu ngi jël temps jël crédit am boobu ba léegi du guddi du bëccëg heure bu ñu ko wooyee maanaam wuyu kon tamit dañ la ko seereel fii jël temps tey jii tëj magasin am ñun sax ñooy jàmbat coono mun leen déedéet nañ war fépp c'est pourtant moom moo waroon na wan wan a tàyyal waaye moom moo ñu gën a sawarloo ni du ma ne sonn naa du ma ne tay naa ànd ak ay xaritam yii ay wëllëreem kon nag maa ngi ñaan nga ñaanal leen ñoom ñëpp rek ba lu ñu mën ren bu ne ñu mën lu ko raw ba ñun tamit bu déwénee maanaam oto bi yëpp kaamil bi sax bu ñëwee dañ lay joxaale caabi ji loolu daal ñu ngi la koy ñaanal ndax diine lislaam amul tànki ginnaaw ñaanal leen sa yàlla tax rek ñaanal leen sa yow tamit ñi ngi ñaan sunu boroom guddal sa fan wéral la ñu yàgg la fekk ndax la nekk sa waajur gu góor mooy nekk xanaa sa doom kon nag yàlla yàlla guddal sa fan wéral la ci barke alxuraan jërëjëf sëñ Fadel xam naa ni jataay bi xaw a xat sa dëkk bi xaw a kii sëriñ si toogaay bi dafa yàgg moo tax ñu yemale foofu kàddu yi rek jërëjëf salaatu wasalaam ala rasulillah jërëjëf kilifa gi kon fas rek sëñ bi nee nañu fas yéene yéen nañ def ñaan gi waaw fatiha ak salaatul fatiha nee nañu def fatiha ak salaatul fatiha ak yàlla diif ak yàlla tiif juróom-ñeenti yoon juróom-ñeenti yoon mënul nga wax amin amin nag gàtt na waaye ci ñaan gi la bokk wax leen amin ndax li ma naan kii di ñaan sëñ baara wax na ko sànq jaan ju daw ak jaan ju mag a jàpp ci màtt lugal olof nag danaan olof danaan làpp taake jur taake kon nanu ñaan rek te nangu ñaan gi amin yàlla guddal ca fan te bàyyi la fi lool nga dundaat yu bari ci barke bi kaamil bii Alaaji koy fasante kóllëre sa waajur mhm. mu doon doomu xoloma mhm. ndaxte sopp na ko bëgg na ko mhm. ndax olof nee na mhm. jege te sori dafa am mhm. ak sori te jege nit dina la jege fekk sori na la waaye nit dina la sori fekk jege na la moom na ko bir ni mhm. maanaam moom jege na sa waajur mhm. ndax lislaam a ko ñor mhm. ngeen ñaanal ko mu wér inchaallah ngeen ñaanal ko ba li mu tàmbali dara bañ koo gàllankoor ñun ñu koy jàppale si liggéey bi tamit dara bañ ñoo gàllankoor ba mu bañ am tànk ginnaaw sa wallaay lisi man gëm naa ni yow mi boo si ñaanee yàlla def moo tax mi ngi ko indi kaamil bii di ko fasante yow kóllëre alhamdulilah bii tamit baati na ko indi ndax yàlla def daray hasard lii sax dafa yéeme ndax bi ma naan sëñ Badou génneel kaamil bi xaw moon ni am na beneen kaamil bu si nekkaale kon ba tey Adja Dior kon day mel ni lii moom moo ko fasanteeg yow kóllëre waaw mu nekkaat beneen kaamil alxuraan jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf merci jërëjëf kontaan nañu bu baax dinaa ko yëgal sëriñ bi incha allah jërë ngeen jëf jërëjëf kammene kadi ɓe kooli moon ɓe ndewni ɗum e juuɗe moon yon jettanum ɗum foti yettinede ñale ñoy sabab bi ñoom tam ñu wóolu leen jofnirɗi nden jottino fof mo wara jote kadi on jettini kadi no poɗɗon yettinirde ni jottinen kam ni gen ko wara jottide julɗo kam so addanama alqur'ana mino jullit buñira yal ala ko wawi tottede ko foti e mum saka ko ɓuri ɗum muna jok tollol saka ko no uppulol ɗum ko ɗum ɗo ko hadiya moƴƴo no fewi lu baax la ñu fol ñaag yàlla yàlla na fu leen barke alquran ñun ñëpp ñu ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla may ñu barke alquran nafiren ɗum hannde e janngo yalla nafiri noon tawi ak ak ëllëg ñaagi allah kadi kala ko allah yalti yaltini e meɗen yo allah rokku ɗumen rondade alqouran ñaan yalla tam yo xam ne ay doom ñu génni jooni yalla may leen ñu mottale moƴƴe alqur'ana mi mokkale alqur'ana mm. e, e galle diine keddiɗo fo kamkam yuddas kamkam diine yepp kamkam diine yepp jeyi mm. nabil moustapha wa sahabi jeyi nabil moustapha wa sahabi on mm. jarama on jarama mone allah jarama jaranden jofte mi sinano oɗon oɗon oɗon jogui lawol so so fekkoon ne du ngeen am yoon dem fii ba ci min nanngatno on ɗo ha hiira jana len tawi fii ba woon sabu jigi ko heewi ko poɗɗen yewtude dafa am lu bari ñu xam ne war nañu ko waxtu am kadi heewi kadi kadi on dafa am ay lu bari lu mu bubbooneen laaj leen saabu jogoye moon onon arɓe ɗo ɓe inde mumen mi anndani wona ni toon fi sen tuɗo ka hamudu ko hamudu ko mi anndani kadi jettoje hamudu sen santa mi kadi to hoɗa hamudu fi anden dekka fof no fonno anndede mine yiwe looli yeppo warnani ko ham kono ko saha ole faaɗi tan mi en jaron ndiyam mi Samson Minjaafoon. mu mu bàyyi leen ngeen wéy. Samson loolu padaa yees. xam na ne am na lu ngeen xaar ci ci kanam. ñooñu kadi min padaa bi démarche. ñoom itam am na ñu ko xaar ci jàkk ji. Allah jaaraama on jaaraama. ma ni jara ngeen jof yàlla Allah jaaraama jara ngeen jof. yàlla jógee njëb di yàlla yóbbu ko urtim do njëb. yàlla fay yàlla neen yàlla fay. amiin jaay nabi Mustafa wa sallam. jaahi nabi Mustafa wa sallam. amiin. wa salaatu wa salaam. wa billahi min والحمد والسلام اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذي ربنا اتنا في subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa alhamdulillahi rabbil alamin salaatu wa salaam ala rasulillahi ñu ngi santaat yàlla bu baax a baax di julli ci sangu sangu yi Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam démb nag ñu ngi jóge def sa yàlla tax ñu ngi jóge Dakar ay une heure du matin une heure et matin ñëwoon nag fii si Matam ñëwoon fii si biir Fouta gépp rek bu ñëwee ci Fouta nag ñu ngi fi taxaw ñi nga xam ni maanaam ñi ngi ñi ngi fi ñëw si ñi nga xam ne dañuy taxawu daara taxawu daara di dundal daara mooy ay daaray cosaan loolu nag kenn mun see wax sa doo tudd am si ñoo xam ne nag dañ leen ràññee ku mel ni Thierno Samassa yor xanaa lim bu takku si alxo si si ndongo daara yor daaray cosaan di leen jox seen lépp mu waral ko waaye tamit ku mel ni Thierno Aliou Thiam léppam war ko ak Thierno yi nekk si biir réseau de Matam yëpp def sa yàlla tax ñëwoon na fi indi leen téere yàlla bi ndaxte nii ñu leen ko waxee woon rek noonu lañ ko bëgg a jàppee. muy leen jaayante rek duñ ne sori na duñ ne tàng na duñ ñu tamit guddi na waaye duñ ñu sedd na ñu ngi nañ ko bëgg a def ci quatorze régions yëpp léegi nag bu ñu jógee fii fi mu nekk ne dañuy wàññeekuwaat ñëw dakaar Dakar ku ne xam ne nag bu fi ñëwee day tombé koor gi koor gi nag dañ nañu focaliser wu nag ci département dakaar Dakar bëgg xool daara cosaan yi jox leen téere yàlla bi jàppale leen ndax olof nee na domp sot la bokk sa waaw góor dina tax xanaa nit gën a góorgóorlu sa loolu nag buñ ko mënee yéen waa biir réew ak waa bitim réew yéen yéen a ko def mooy waa Sénégal ak waa bitim waa bitim réew ñu ngi leen di sant yéen ñëpp ku si bëgg a joxe nag sa wërsëg na nga ko joxe si euh, numéro yaa ngi si écritel bi di jàll. képp koo xam ne tamit yaa ngi nekk diaspora tamit bëgg see joxe bi Amérique ak yëpp numéro yaa ngi si écritel bi nga joxe si di leen sant di leen gërëm di leen wax ne nii dong la mbooloo xajuñu soxla waaw sa ku def ku ne. maanaam yàlla rek moo lay fay sa yàlla am na fay yàlla yàlla fay la ci barke alxuraanu karim ndax téere bi 114 saar la nekk 3600 aaya nekk nangami millions yi araf kon nag yàlla na leen ko yàlla defal ay yiw kenn ku si ne mu nekk sa faju ajo àdduna ak alaxira yàlla mën na ko yàlla ko yàlla def sa alxuraan attan na ko di wax na góor yàlla yi nga xam ne si ñoom jóge ñoom Thierno Sama sax Thierno Aliou Thiam ak Thierno ñu dem yëpp yàlla na yàlla guddal seen fan may leen wér ndax ñi nga taxaw diina ji ñi ngi taxaw lislaam bi seen mu gën a sellee kon nag salaatu wasalaam ala rasulillahi kon ba beneen yoon incha allah.